Aquateria voilà mi ngi noonu asalaamaaleykum asalaamaaleykum di féliciter di remercier Pape Ndiaye Thiou mi fi jóge léegi léegi ak euh, ku mag kook nga xam ne vraiment si di Samba yaru na bëgg na yaayam te digganteem ak Papa Ndiaye démb la woon man j'ai témoin fekke naa ci lu bëri si di Samba nekk am ku am jom nag yaru tey réglé jege ndeyam yaru réglé jege ndeyam moo tax doo namm dara foo jublu rek yàlla na fa si yàlla jublu teral nga sa ndey toppatoo nga sa ndey réglé nga toog nga si wetam li may wax Pape Ndiaye ci xam na ci dara Pape Ndiaye si décembre rek la gëm liggéey nañu lu yàgg nag macha allah yal na leen yàlla dafal cet Pape Ndiaye nga def invitation bu am importance ñi nga invité yëpp bii moom ci gën a am solo parce que moom mu ci ëppal njariñ parce que dama xam ka nga invité di nit ku am jom man ku bëgg sa rek ma bëgg la ku bëggul sa ndey bëgguma la parce que bëggoo sa très bien alors gars yi namoon naa leen maa leen xaw maa ngi nii ñëw naa jóge màkk def sama nganale bu baax <laughs> rey ay gëléem rey ay nag voilà vraiment rey naa sax ay picc ah rey na ba rey fas waaw parce que am na ay copains yoo xam ne dañuy lekk fas <laughs> way way c'est des daw mayen xam ngeen daw mayen am na ñag am na am na am na ivoirien am na daw mayen waaw li may wax nii système xam na ko système xam na leen parce que fekk na leen deux fois gàlle samay copains yoo xam ne ay daw ma lañu voilà alors ñu dem xooli titi laa yoon tey titi laay ibbee xam nga lu tax may titee may ibbee titi parce que vraiment titi dafay liggéey liggéey bu am solo ànd sec euh, Pape Pape Seck waaw Pape Aliou lay nuyu de passage vraiment yow jëga di kenn koo àndal mu avancé koo àndal mu yokk bravo à toi yow tout le temps fu ñu la fekk da nga naan Sénégal ñoo far te dëgg la nga ànd nag xale bu am jom bu bëgg boppam titi vraiment titi maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram titi maa ngi lay ñaanal liggéey bi mën nga sax liggéey bi man li ma lay ñaanal rek mooy kattan ak wér gi yaram parce que yaru nga baax nga tabe nga titi da nga tabe ku tabe nga ci waykat yi ma xam yëpp ci jigéen ñi yaa ci gën a tabe voilà parce que sa tabe laa gis wayal bi laa yaa mën a way yàlla na sa baat bi wér titi du jën sama mon ami banquier du jën pambay banquier chéri Mambousso koko du jën nee na waxal ma titi moo mën a way titi yaa mën a way merci Pa Moussa ñu ngi lay bëggee Pa sek Seck ñu ngi lay bëggee di la ñaana une très bonne continuation sa diggante ak titi mu nekk une réussite waaw moo koy may sama xarit nag nga xam ni moom dafa bëgg titi bëgg sëñ Abdou Karim Mbacké muy Cheikh mbay Cheikh mbay borom Touba mondial cosmétique Cheikh Mbaye bëgg Serigne Touba ba tuddee produit yu yëpp yu muy jëlee à l'extérieur borom yu bëri yi Cheikh mbay boroom Touba cosmétique doomu ndeyu xaadim ñu ngi lay bëggee parce que danga bëgg sëñ Abdou Karim Mbacké lépp loo am yaa ngi ko investir Sénégal am nga jom mën nga liggéey gëm nga sa bopp bëgg nga nit yeru nga réglé nga waaw xaritu xaadim xaritu àdduna di waajal nag màggal bi waaw man kaar nga may yónnee Sénégal tour ci lang ci ci mbay Sarr lañu dem dan doom ji sama xarit la dan saar ah borom Sénégal tour nga luyal ma fa bis bu mag ma yeb ci ñëpp yobbu Touba sëñ kër sëñ Abdou Karim ah Xaadim voilà moom la vraiment Cheikh mbay borom euh, Touba mondial cosmétique ñu ngi lay ñaanal yàlla gën la jàppale parce que xale bu am jom nga bon continuation à toi di ci nuyu sama jantal boy Cheikh Diop Houston Body Cheikh Diop borom yoof nëngaañ boy Cheikh Diop jantal boy ñu ngi koy di nuyu Assane son jumeau Assane Diop boo yooyu ñoo téye yoof na ngaañ loxo e eh, Pepe Kale Pepe e eh, Pepe <laughs> Pepe Kale jantal booy Pepe Kale moom tamit vraiment booy bu yaru la ñu ngi koy ñaanal diggante boobu gën a rattax Cheikh Diop di booy bu am fulla booy bu am jom booy bu gam boppam ak doomu ndayam Assane Diop vraiment Diop juba yéen moom Ndakaaru parce que maire Mamadou Diop seen baay la seen magu baay la seen mbokk la seen lépp la vraiment Cheikh Diop borom yoof nangaañ asan Diop borom yoof nëngaañ ah Pepe Kale borom Zaïre wala Congo <laughs> alors les Madia <laughs> très bien foofu dara du day tey bu ñu wàccee di nuyu Ibrahima Dia waa Ibrahima Dia tamit ñu ngi koy nuyu vraiment suñu xarit la Ibrahima Dia borom Jolof sama pël boobu Ibrahima Dia Dia Tukulóor borom Jolof ana du Ndiaye borom Lubudu borom Jolof ndeysaan jolof jolof yaa ngoog pël yooyu ñoo am jom jotu kulóor borom jorof Ibrahima Dia maa ngi lay bëggee bu baax a baax di ci nuyu sama doomu nday Xaadim Cissé chéri Zeynab waaw Xaadim Cissé ngi noonu gaynde gi Xaadim Cissé suma xarit la gaynde wakaam baa ngi noonu doomu nday Cerno euh, doomu ndayu vraiment euh, jaraaf yu sundooy jaraaf yu sundooy ku ko xam xam ni fij ku ko xam xam ci dëggu ga ku ko xam xam ca maanu ga jaraafu Youssou Ndoye yàlla nga fi yàgg te wér yàlla nga fi yàgg te wér maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee tamit encore une fois Papito sama xarit la Papito di bëggee tamit Babacar Babacar ak Delphine waaw couple boobu couple heureux la yàlla na leen yàlla gunge couple bu am jom. jëkkër ak jabar yooyu yàlla na leen yàlla gunge fële ca Villa Cristal Almadi Babacar ak euh, vraiment jabaram Delphine ñu ngi koy ñaanal ak Pecora Sa ñu ngi lay bëggee di bëggee tamit di la wax ni programme bi vraiment euh, Cellil Bathily tamit foog ñu nuyu ko moom it ku am jom la borom vagu doomu nday Papito Cellil Bathily ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko bëggee bu baax baax moom tamit Cellil Bathily ku yaru la ku am jom la Cellil Bathily di nuyu personnel Villa Cristal yëpp di leen wax ni vraiment moom moo jëm sax tey dinaa ko teg parce que jantal boy la mooy toj vendredi yi Villa bu ñu fa jógee samedi yi sama chéri ñëw Viviane Viviane tamit dinaa ko dugal tey lépp ndax Delphine ak Babacar ñoo ko waral parce que vraiment seen liggéey dama ci kontaan am ngeen jom réglé ngeen nangu ngeen liggéey ba pare dimanche nag ñu soulagé dem naa ni suppu yeel waaw dimanche ñu dem naa ni suppu yeel parce que suppu yeel bi boo ko naanee ba pare teg ci sa ndox ak aquaterral bi da ngay gën a yëngal àdduna ça digère vite graisse ki da koy wàcce sa biir du daw doo dem lu bëri ndax ndox mi da ngay dem rek di purger di saw rek te saw day raxas ndax ndox mi day raxas ndax dama tàyyi lépp lay raxas aji ma chéri taj nga fi yàgg Pape Ndiacu sa chéri dama tàyyi <laughs> voilà ñu dem xooli Viviane parce que man dama koy koj ah, samedi yi laa koy koj Villa Cristal Vivi moom sama chéri la sama gayen la Momo Dia yow tamit maa nga ñëw ci yow parce que vendredi yi yow la très bien alors ñu dem xooli Viviane te ñëw waaw bilaay Viviane yaa baax ndëgg ay ya ya karaj karaj karaj wallaay tuddu bopp saf yi mbokk mais Vivi noonu la koy defee nag Villa Cristal karaj karaj ak xale yi mu àndal karaj <laughs> très bien Viviane yi ngi noonu Chinit Ndour suñu xarit suñu chéri oh santatul Ndour Viviane Chinit Ndoy santatul Tafa santatul Buuba léegi man mii la sant Viviane Chidid Ndoy waaw waaw ku ràcce jëmale sa kanam mu dëll <laughs> très bien Lampard Dental Boy maa ngi ñëw ci yow Lampard doomu nday Vito Badiane chéri jànq mbay jànq mbay suñu jabar jooj nga xam ne moo ñu muñal ah di ci suñu grand Dame Lo notre douanier Dame Lo nga xam ne dara du ko rëcc drogue bu ñu dugal ci port bi mu jàpp ko lu la nga ci port bi ku fa teg dil ñu jàpp la merci à toi Dan Damlo ñu ngi lay bëggee ak Lay Sané Lay Sané tamit transitaire bu jub la jub xocc la def parce que làkkat la joolaala xam ngeen joolaa yi dañu gëm service conteneur bu ñu dugal drogue déclaré ay télé wala ay frigidaire da lay def visite à domicile ba sa ibbi ko boo koy jéem a corrompu xam nga dañu bëgg ko ay corrompu di joxe ay 500 mille ak 1 million mu tëj la ci kaso bi. merci à toi ah sama doyen bu mag boobu daam Lo maa ngi lay bëggee suñu grand la ak Laye Sane suñu transitaire boobu nga xam ni vraiment dafa jub xocc di doomu ndeyu Lampar doomu ndeyu Vito Badiane doomu ndayu Jànq Mbay suñuy jabar yaayu Mouhamed ak sëñ Fallou Vito. une très bonne continuation booy bu yaru nga doomu ndoy Lampaar du nuyu Awa Saw Awa Saw Diop Anansi la nekk Anansi le vieux Awa Saw Diop après France avant Suisse frontière bi foofu waa Tëngéej la doomu Tëngéej la Awa Saw Diop ñu ngi lay bëggee ah borom Annecy borom Annecy le vieux ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu tamit vraiment euh, sama gars yi nga xam ni Lampaar mi ngi leen di bëggee Vito Badiane ak magam boobu nga xam ni dafa yaru daam loo di bëggee tamit vraiment. suñu doyen bu mag boobu daamloo ak suñu transfert bu mag boobu nga xam ni vraiment ubbil ma antenne yi mooy Laay Sané ñu ngi lay bëggee bu baax a baax alo alors Kalidou Ndiaye tamit ñu ngi koy nuyu fees a jolof wax naa ko suma xarit suma doomu ndey suma sëriñ di nuyu tamit waa Lubudu mu ngi leen di bëggee bu baax a baax ak Ibrahima Dia jot tukulóor ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee Laay Kédougou waaw ak am jom te gëm boppam fële ca min door ba la nekk te musu laal musu fa laal dërëm laay Kédougou ñu ngi lay nuyu vraiment di ci nuyu suñu yaay jooj nga xam ni suñu mama Jaara Faal yàlla na say fan yokk mamaa dundal dundal dundal vraiment sa dund am na njëriñ parce que yaa ngi ñuy ñaanal du ñu gunge di ci nuyu suñu papa tamit maam Jaara ñaa ñaan vraiment papa yow dundal dundal ñu ngi lay ñaanal yàlla may la wér gi yaram di ci nuyu tamit vraiment Moustapha Guèye borom mine d'or Moustapha Tafa Guèye borom mine d'or ñu ngi koy nuyu di ko bëggee bu baax a baax vraiment di ko ñaanal moom tamit une très bon continuation di wax ni vraiment euh, laay Kédougou yow it yàlla nga yàgg si sa liggéey bi ku jub nga ku baax nga ku yeru nga vraiment ñu ngi lay ñaanal di nuyu Tidiane Fall Tidiane Fall tamit doomu ndeyu laay la vraiment Tidiane Fall ñu ngi lay bëggee laay Kédougou nee na bëgg na ci yow mi ngi a di ci nuyu tamit nday Xadi ah nday Xadi Wade moom suñu doom la Xadija lañ koy woowee ah borom le 30 happy birthday to you day fete say deux ans yàlla nga fêté say cent ans nga dund ba ñu muur la nga sëy suñu doom jooju nga xam ne vraiment di ci nuyu yaayam Amina Amina chérie ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sa papa tamit suñu xarit la ñu ngi lay ñaanal une très bonne continuation borom Radisson ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax ah Tidiane bëgg nañ la bëgg nañu Khadija suñu doom bëgg nañu tamit vraiment Ousmane uh, Fadiga suñu xarit la borom Padois Ousmane Fadiga booy bu yaru booy bu adorable l'ami des stars moom xaritu gars yi la vraiment di nuyu tamit suñu papa mi ngi soog a jógee Màkka Saliou Ciss maire de Diass yàlla na say fan yi yokk yàlla na say fan yàgg maa ngi ñëw ci Moussa solution ak équipe bi vraiment Djibi Ciss président ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di la ñaanal di ñaanal maas di ñaanal tamit vraiment équipe bi euh, yàlla yokkal seen fan di wax ni tamit euh, maa ngi ñëw léegi léegi léegi ci garde group solution alors ñu dem xool yi Kumba Gawlo kooko sama chéri la tamit je l'aime bien je l'adore moom xam na ko Matar Seck xam na ko maa ngi nuyu famille bi yëpp Kumba Gawlo ma neex booy di nuyu waa cité Biagi di nuyu waa cité Jili Mbay fo mu dëkk di nuyu Kumba Gawlo gardien mi di nuyu euh, euh, animaux animal yi nekk ci këram di ko nuyu moom di nuyu umu provocation di nuyu Ayda Ndiaye Ayda Ndaxa naxoo ñu ma chérie <laughs> alors ñu dem xool man Kumba Gawlo man neex boy rafal ma Kumba ma chérie adore waaw elle mi ngi noonu la diva adorée borom euh, bat bu neex bi vraiment Euh, di artiste bu am classe di artiste bu am valeur di artiste bu am jom gëm boppam Coumba Gawlo Seck maa ngi lay ñaanal une très bonne continuation di la wax ni je t'aime mën nga way morceau boobu mbëggeel dafa fort xam naa ko heure bu nekk yaa ngi may woo heure bu nekk ñu ngi gisee vraiment mbëggeel dafa sensible parce que xam naa ni tu m'aimes tu m'adores <laughs> tu occupes de moi toujours Coumba la diva adorée bonne continuation ma chérie di ko may euh, tamit les amis de Arona Dia Mousli Fall maa ngi lay bëggee Italie vraiment Mousli Fall mi ngi def affaire bu extraordinaire group boobu mu créé di euh, euh, les amis de Arona Dia Arona Dia dootuñu ko présenté kenn Arona ja ñëpp xam nañ ko ci social Arona Dia ñëpp xam nañ ko ci euh, jàppale néew di doole yi loolu mooy nit c'est ça la personne boo yoree ay milliards denc ko denc ko da ngay dee après banque bi moo koy mujj localiser looloo tax banque mondiale am xaalis man dama teel a def sama héritage teel a bindal samay doomi ku ci nekk say milliards bu ma deewee tali mais da ngay yor ay milliards après dee banku te bàmmeel dafa grave ah. da ngay banku yooyu di la mat fu ne wakkatu <laughs> kenn du la fa fekk dama <laughs> tay <laughs> alors di ñaanal Arona Dia aroona Moussa Dia yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na yàlla gunge la mbébét bi nga am ci Sénégal ah yàlla gunge la ci jàppale la ci nga nga def ko mu sotti ci bisimilahi rahmaani rahim terminé ko alhamdulilahi rabbil alamin parce que Arona na Dia yàlla na say fan yokku nit ku baax nga nit ku gëm sa bopp nga vraiment mouvement euh, les amis de Arona Dia groupe boobu ñu créé itali vraiment mi ngi cartonné yàlla nekk groupe bu xam ni àdduna lay wër parce que euh, ñi ci bokk ñëpp am jom Mousli Fall moom jigéen ju am jom la jigéen ju gëm boppam la jigéen ju def ci social la vraiment waa ngaay la nekk fee di daan doolem di jàppale ay nit vraiment bravo à toi Mousli Fall bravo à euh, les amis de Arona Dia groupe bi yëpp maa ngi leen di ñaanal vraiment yàlla gunge leen seen pexe yi ngeen am pour liggéey yàlla jàppale leen si ngeen dugg ci si bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin bravo à Arona musa Dia maa ngi lay bëggee bu baax a baax fexeel boo duggee Ndakaaru ñu gisee alors di way di may waa dédicas euh, dédicace bi nga xam ni mooy euh, secteur 7 secteur ak Aquateria toujours laa téye sama loxo di ci door toujours petit pourcent bi dama koy bàyyi muy lang ama leen banaana day lang te du wadd mais bi day lang du wadd tamit <laughs> voilà du léppay wadu aussi alors di nuyu tamit vraiment waa secteur 7 jas xale yu am jam yooyu ah di ci nuyu Yves Niang chef secteur la vraiment di ko nuyu euh, di nuyu tamit euh, vraiment euh, booy booy jas yi Ousin maa ngi koy bëggee Baye góor gi maa ngi koy bëggee Rita Sis maa ngi koy bëggee bu Sall maa ngi koy bëggee vraiment Ami Seck mi ngi fa Khady sen mi ngi ci biir PM kaw kaw maa ngi lay bëggee bu baax a baax vraiment boo Ndiaye sama gain la maa ngi koy bëggee bu baax a baax boo ah, toutes les ASC de la commune de Diass maa leen di ñaanal di ñaanal seen maire vraiment monsieur le maire monsieur Ciss ah, yàlla guddal sa fan ah, vraiment makka nga jógee lépp li nga fa ñaan ci dëkk bi bëgg soxal dëkk bi yàlla jàppale la ci nangul la ko vraiment kooku di bàyyi Djibu Ciss président mouvement bu mag boobu di vraiment Euh, groupe solution mussa nekk fa nekk ca bopp ba maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee tamit vraiment suñu yaay suñu xarit mère Anta Ba duñ la fàtte mère bu am jom ngi noonu mère Anta Ba yàlla na say fan yokk parce que vraiment nangu nga liggéey yaa ngi jàppale xale yi di gunge xale yi ak maman Ami Collé Faye fàttewu ñu la sama séeréer bi maman fay Birame Penda Waagaan may ma cere may ma cere waaye wala nga may ma laalo <laughs> waaw suma yaay la vraiment ak mama asu menga menga Mboro yow it yàlla nga fi yàgg te wér gis nañu vraiment sa taxawaay ci liggéey bi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo jógee Makka mama Awa Seck tamit vraiment la nga fa ñaan yëpp ak Alassane Ciss suñu suñu suñu maire boobu yàlla nangul leen ko vraiment sàmm leen sàmm njaboot gi li ngeen mbébét ci dëkk bi yëpp mu sotti alors ñu dem xooli gigi ñu dem xooli gigi ñëwaat Tamsir maa ngi ñëw de waaw Momo Dieng mi ngi ñëw parce que vraiment vendredi ah téléphone bi waroon ngeen bàyyi ba ci kanam rek waaw ma jël ko rek alo allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. foo may woowee ak noo tudd. maa ngi woowee Almadi. ah Almadi. maa ngi tudd Anta Sarr. Anta comment vas-tu Anta. ça va. ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. ça va bien merci. maa naka émission bi mbaa rafetlu nga ko. waaw neex na trop. Ah, merci beaucoup. ni ni nii de laa fi nekkee di leen bégal. continué ko yàlla nga fi yàlla yàgg ba ci kanam ak kanam. Anta chérie Anta yaa baax waay. <laughs> merci. kontaan naa nee ma gu ah. waxal gu caace. gu caace. ah na coupel baay <laughs> alors vraiment di euh, féliciter Idrissa Gana Gueye. ci euh, championnat bi passé premier match am Paris Saint-Germain mu réussir ko di ñaanal tamit suñu rakk doomu Tëngéej la Pape Ndiaye Soare Pape Ndiaye Soare tamit vraiment suñu gauche boobu nga xam ne ñu ngi koy ñaanal waa Deewo yi ñu ngi koy ñaanal waa sance ba waa Tëngéej ñu ngi koy ñaanal ah ñu ngi ñaana tamit vraiment li nga xamante ni man maa ngi koy préparé sargal Pape Ndiaye soirée fële ca Tëngéej bientôt maa ngi ciy waxtaan ak suma grand Idi Thiaw maa koy nuyu di nuyu maire Albé vraiment félicitations à vous Pape Sall tamit félicitations à gis naa seen liggéey rafet na di nuyu tamit ñi nga xamante ni vraiment ñu ngi may jàppale Tëngéej ci may ne grand Idi caw mi ngi may jàppale ci communication bi mi nga may jàppale ci idées yi ci xalaat yi vraiment merci grand borom sanca ba borom tëngeej borom maire ouest di ko ñaanal tamit moom digganteem ak albendooy yàgg vraiment grand bu nice la grand bu disponible la vraiment yàlla na ko yàlla jàppale alors ñu dem xoolu gigi mook umu saw sama ñaari jumelle yooyu di samay chéri bu ñu paree foofu après ñëw ci euh, tey fii taj de waaw bu ñu paree ci gigi rek ñëw ci Momo Dieng après Waly après tëjee Pape Diouf sama séeréer bi Pape Diouf doomu nday Maxtaar suba teel <laughs> e maxu waaw très bien ça ça ça se ni xale yaa ngi bomb di da ngeen bëgg bomb rek gigi yaa ko mu saw tam xarit baa ngi ñëw di ngeen bomb ba bomb fu dara nekkul <laughs> waaw e eh, Eric Senghor su l'homme au regard sincère Éric Senghor c'est mon ami maa koy nuyu bu baax a baax di nuyu DJ Kolos sama xarit la Kouthia fàttewu ma ko Alima Ndion Zik FM fàttewu ma ko vraiment fàttewu ma tamit Cheikh Sarr maa leen di bëggee bu baax a baax di déggee bëggee DJ Padros di bëggee VIP Gaynde DJ Clédor di bëggee ah DJ yëpp maa ngi leen di bëggee waaw waaw man je suis solidaire très bien alors di bëggee tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre depuis Paris fàttewuñu leen euh, ñu tamit vraiment ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bëggee depuis euh, États-Unis ah ñi fàttewuñu leen ñu tamit maam Thierno Zaking fàttewuñu ko fàttewuñu tamit vraiment du jeen suñu xarit la ñu ngi koy bëggee bigi bigi fàttewuñu ko vraiment di bëggee tamit euh, aji aji ba aja aji ba ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee Mousli itali di bëggee maam Diarra vraiment di bëggee président Diène Marcel Diagne ak Euh, sommaire Diamniadio la ak City ñu leen président man du ma la mës ma nga la kaleel Pape Diouf bi sax séeréer bi moom lay tëjee di bëggee tamit vraiment ab Ablaye Faye di bëggee Mouta di bëggee tamit euh, Tange ma ko Dime ma ko ma tamit euh, vraiment du du Tafa Diop dëbb vraiment Modou Mbaye doomu Serigne Saliou ma ko fàttewuma waa Radisson Francis maa ngi lay bëggee di bëggee Sow di bëggee personnel bi apo maa ngi koy bëggee bu baax a baax Apollinaire fàttewu ma ko vraiment ñooñu samay xarit lañu di bëggee laay Kédougou du duma la fàtte toujours parce que laay Kédougou vraiment yow liggéeykat nga maa ngi lay bëggee man dama bëgg kuy liggéey parce que man damay liggéey alors comme Cheikh Mbaye Cheikh Mbaye waaw mi ngi noonu Cheikh Mbaye ngi noonu vraiment borom Touba mondial cosmétique moom it xale boobu vraiment mi ngi pare Touba màggal bu mag boobu nga xam ni vraiment dañ ciy ànd ak Sénégal Tour ak euh, Langsar Langsar du ma la fàtte vraiment ak soxna yi di fat ñaanal paa bi Mbaye Sarr mu yàgg yàgg fi loolu te wet vraiment parce que liggéey bi rafet na tey la 2STV bu ñu taxawee apprécier ko partout dans le monde di ma woo partout dans le monde di apprécier liggéey bi footballeurs yi mbër yi musiciens yi nappkat yi les navigateurs waa Kayar ma ci nuyu monsieur le maire di gën a remercier tamit suñu maman chérie madame Ndiaye vraiment jigéen ju mën góor la mi ñuy gunge ci liggéey bi di ñu encourager di ñu jàppale nag parce que moom parce que vraiment suñu maman chérie la yàlla na say fan yàgg alors Lampa <laughs> gu caaci ñu dem xooli euh, suma boy Momo Dieng waaw moo Dieng parce que jantal boy la baayam di ndaanaan bu mag Njuga Dieng di ko may nag suma xarit suma sëriñ Tamsir su sunguf baax na merci Tamsir su sunguf baax na Kalidou Ndiaye su sunguf baax na man ñi ma dajale ñëpp seen sunguf dafa baax maam Thierno su sunguf baax na sëriñ Mbaw su sunguf baaxul keroog bi ma sangoo ba léegi sama yaram bi day xasan rek moom su sunguf moom baax na merci bëggatuma boobu di nuyu Tamsir xam naa Tamsir ak ay toj ak Kalidou samay xarit lañu vraiment di di kuy jàppale nag moom moo Dieng ku bëgg Momo Dieng Momo moo lay ñaanal di ñaanal grand sa mag Alpha Dieng ak my boy Plaidy Boy Pama Deltal Boy ñu dem xooli Momo parce que vendredi nag gars yi ñu koju ko fële ca Villa Cristal dina ma neex trop tous les samedis ñu ko fële ca Villa Cristal dina ma neex dimanche yi nag yaa Viviana vendredi Momo Dieng la de samedi Viviane la dimanche spécial supp la boo fekkee weekend bi ba set ba tas nga dem naanu ci supp di ko bëggee di bëggee Modou Mbaye di mee waa di ko bëggee di bëggee Khalil vraiment Khalil euh, di ko bëggee di bëggee président di bëggee Aly Ngouille Ndiaye di ko ñaanal mu ñibbisi si jàmm rek la dëkk bi vacances yi nag arrêté ñibbisi rek la dëkk bi parce que gars yi bi ñu ngi wax rek ñu ngi wax rek ñu ngi wax rek bravo Aly Ngouille Ndiaye sa liggéey rafet na vraiment ah, vraiment Aly Ngouille Ndiaye sa liggéey rafet na maa ngi lay féliciter di la remercier di ñaanal tamit booy xalil bu président de la république bu Amadou Sall vraiment xalil booy bu am jom di ñaanal tamit moo Modou Mbaye diime suñu frère la suñu xarit la vraiment tey émission bi after work nii laa ko bëggee nii laa koy defee que vraiment ñooñu ñooy euh, Sénégal Khalil bravo à toi Modou Mbaye bravo à toi Dimé bravo à toute l'équipe de la de Modou Mbaye Dimé sa équipe bi yëpp maa ngi leen di ñaanal di ñaanal Khalil xale boobu nga xam ne am na jom une très bonne continuation yàlla jàppale la yàlla na la yàlla jàppale Khalil one love boy jantal boy ok yeah di bëggee tamit euh, sama xarit boobu nga xam ni mooy euh, Moustapha Wakam maa ngi lay bu baax a baax di bëggee docteur et donc waaw donc ñu ngi koy bëggee vraiment muy muy muy muy muy muy grand bu yaru du bëgg sax moo wax turam vraiment docteur rek lay wax docteur Tall capitaine dëgg te capitaine la day laxatu waaw vraiment suñu xarit la suñu grand la ñu ngi koy ñaanal une très bonne continuation docteur di ñaanal la famille Tall ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax docteur waxal sa copain boobu kii dama ko fàtte heureux ménage ñëwoon naa ci mariage yi mais dama réeroon quoi ilimaan bi xaaruma dama ñëw fekk mu takk ba pare man xawoon naa ko tekki sax dana ma ko rek mu takk <laughs> président Diène Marcel Diagne merci à vous merci à tous les auditeurs tous les spectateurs tous les téléspectateurs yi ma doon seetaan di leen wax ni Aquaterral moo fi nekk man moom lay soulagé woo jox gars yëpp rendez-vous ma tëjee Pape Diouf tëjal ma Pape Diouf ak séeréer bi bul ma tegal waali de tegal ma Pape ma koy may ma taatu après fële Saraba